alaykum mbokku internautes yi ñoo ngi leen di nuyu di ziar di wax euh, képp kuy gan ci chaîne bi ñoo ngi lay ñaan askan nga abonné te activer cloche bi ndax euh, vidéo bu ñu dugal rek nga bokk ci ñoo koy njëkk gis wéré di like wéré di commenter également tadi di partager vidéo yi c'est très important donc gars ñëw jox leen benn information concernant Ismaël Jacobs mom nak tay ji match euh, équipe bam di Monaco ak Ajaccio bokk ci li ko waral moy dafa am gène ci hanche bi manam dafa am ay métit ci hanche bi donc douleur yoyu mu am nag moo tax waa Monaco booleem ko tay ci sen match contre Ajaccio donc biñ ko déggee nak ñu am ci njaaxare parce que dañu japp que ñi ngi xel ñaar ndax est-ce que dina bok ci suñu match double confrontation digënde Sénégal ak Mozambique. Euh, parce que jamono yi ñuy wax ak yéen ba léegi waa Monaco waxaguñ ñaata fan lay Ismaïla Jakobs su toog ngir mën ñëwaat donc j'espère que nag du nekk lu graaw j'espère que balaa boobu dina tane et dina mën a fekk regroupement suñu gaynde yi euh, donc loolu lañ koy ñaanal mu tane ak jaam mais fekkee tanewul fekkee tenewul donc kan la Aliou Cissé war a woo en renfort ngir mu wuuti ki nga xamante ne mooy euh, remplacer ki nga xamante ne mooy Ismaïla Jakobs si latéral bi ndax yéen Aliou Cissé ngeen gis wala Fodé Ballo-Touré wax leen ñu daal en tout cas ci commentaire yi kenn ngeen gis Aliou Cissé woo ko ngir mu remplacer Ismaïla Jakobs su fekkee du mën a teewee double confrontation entre le Sénégal et Mozambique ndax fii lañu jëm ak yéen nag dee wax ween di like ween di commenter jaa ngeen jëf